waaw gaaw gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le dans son domaine. ah lii ñu am lépp tawfeex sëriñ a may. gën noo gàtt sëriñ bi. sëriñ bi nag làq na ay jagle ci buur làq na ay kéemaan itam yu wóor moom ay jagle itam dina yëgam yëpp ci moom lan ajo ngir jàll itam. وفاز بالقرب والرضوان بالخدم حاز المفاخر عيسى جنس كرم وفاز بالقرب والرضوان بالخدم حب القديم ومصباح طريقته استرارت لمن يمشي بلا سلم فتى أديب أريب موقس يقس بر كريم جواد مخجل الديم رب الجفان التي دعبا قد امتلأت في الأم والعرس والأقباس والدسم وبمتاعم أنا كل مفتقر بسبع للديف من عربي ومن عجمي أما دايا لا تخشى على أحد بنطق بالفم أو بالقت بالخلم وزير سيق على mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan dañu bàyyi xel ci Tawfekh Production euh, ñi ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk di leen ziara euh, di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bassirou al xalifatul am suñu borom may ko wér ak gudd euh, yi ñi ngi fii ci CICES ci salle bu am solo bi nga xamante ni xeexo yu am solo dafiy faral di am tey nag niñ ko baaxee dafay juróom-benneelu édition journée culturelle dédiée à Serigne Mame Cheikh Issa Diène nekkoon kenn ci ñi nga xamante ni ñu jege woon Cheikhul Khadim la ba am wàccuwaay ba am lii di gratub Cheikh ba euh, tey ji nag ñu am euh, mbégte ak Tawfekh Production fas yéene lépp lu fi jógee ci ay programme ak euh, temps fort yi daañu dem salon dana incha allah taalal fa ay gan ndax jàpp nañ ne dañu am kilifay politique fay ñëw ak kilifay diine ci tundu tàggaar nekk biir Kajoor gile maam Cheikh Issa jenn baayam ba Ibrahima jenn la tuddoon moom moor biraan mooy mbër mu fonk alxuraan maam Seex maam Seex maam Seex Isa maam Seex jumaay njaarim mu koy liggéey bam sotti tey ban koy armeel ya sax moo ko jagoo ku faatoo buñ la ëndee fa moom nga daldi di yaatu waaye def leen nii nu màggal maam si Isa Diène armeel ya sax moo ko jagoo faatoo buñ la ëndee fa moom nga daal yaatu te ay addiyam daawul taxaw lanti noor la woon te sax dañ fa daa fekkante lum yor mu di dem ba Seex Bamba naa man di Isa wa lépp ma jox bu may jël mu bul fàtte Isa ak waa këram yaqulu Abdullahi wa Ahmadu salaamaaleykum niñ ko waxee rek mbokki jullit mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi santaat yàlla suñu borom bi mi ñu mayaat kattan ñu fekke wat ko euh, ni ki ren jile euh, ci bëccëg gi ñu jagleel ki nga ne moom moo di Cheikh Issa Diène nekkoon kenn ci Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadim Rasoul euh, ngeen gis ne bëccëg gi ñu ko jagleel fii ci CICES di barab bi nga xam ne bëri na ñu fi amal ay xeexoo yu am solo yu mag rawatina xeexoo yu diine fii ñu taxaw nag mankaan na boo xamante ñu ngi ko fàkkal aji way tawat yi maanaam ñi nga xamante ni dañuy gis ni seen yaram dafa xaw sutante wala bokk ñu am lu ñu yëg seen yaram am na barab bu ñu leen fàkkal fii eh, jagleel ko waa kër docteur nga xamante ni mbooleem ku seq ay jéego dëgmal si fi boo ñëwee daañu la saytu eh, ci anam goo xamante ni dërëm du génne sag jiba wala bokk sag nafa eh, dañ koy def ci li ñuy wax de façon gratuite loolu nag bokk na ci kon consultation ngeen gis nii muy déroulé mën na kon ay innovation la ci bëccëg gi ndax nag euh, lii ne mën nañu jàpp ne euh, bëri wu naan bëri waat lu ñu fi daan am ren nag gis nañ ne ay innovation la ci daañu nag euh, dékk suñu micro ñenn xëy na ci ñoo xamante ni war nañu mën a sànni ay kàddu ci naka la ñu jàngatee yokk-yokk yu ni mel ak innovation ni mel ak it saytu gi ci xeexoo bu ni mel bu fekkente ni rek yem na damay woo sama joorin maa ngi di la nuyu baax a baax ci bëccëg gu am solo gi xam ne ñu ko jégleel maam Cheikh Issa Diène ginnaaw ma la bàyyee nga nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan Tawfekh Production bi ñu jagleel Serigne Cheikh Issa Diène asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakatu ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant mbooleem membre yi nga xam si yëpp ñoo taxawal bis bu màgg bi ndax lépp feeñal liggéeyub Cheikh Issa rek la te Cheikh Issa moom dodu lu ndaw képp ku tudd Cheikh Issa di nga tudd képp ku tudd Serigne Touba di nga tudd Cheikh Issa ndax ab liggéeyam bu am solo bu mag bi mu def ci yoonu murit kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen tam bi ngeen dikkee. jaajëfal papa mu mel ne yow sànq jot nga dugg ak waa Kër Docteur euh, ba ñu saytu la euh, naka nga gisee liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii. waaw sant sunu borom rek sant Cheikh Mouhamed Lamine Diène sant Cheikh Issa di sant yàlla bu baax ndax ku ne xam ne tubaarkàlla tey jii bi ñu ñëwee tubaarkàlla ñu ñi xam ne maanaam yàlla dafa dogal ñu xaw a nekk ay mag xam naa ak wér di nekk sunu yaram ñun ñëpp dañoo consulter te doo fay dara la dafa sa jàngoro. jox la garab yu baax tubaarkàlla nga di ko naan kon loolu sant yàlla la waaye nag loolu Cheikh Issa moo ni bindoo Cheikh Issa tubaarkàlla dafa nekkoon jàmbaar joo xamante ne si digganteem ak Serigne Touba ubbul kenn man mii di wax ak yow nag maay Sidi Baara Mbay mu mu tuddee ma Cheikh Mouhamadou Lamine Dieng may taalibi sëñ Naar Dieng ku miin ko sëñ Naar miin nga miin nga ma ca kër ga tubaarkàlla sama pas-pas ak fonk ma njaboot gi fonkoon ak bokk ak waa ko sëñ Naar yi kon ñu sant sunu borom baax. bi ñu defalee bis bi nag Cheikh Issa Diène maanaam nga xam ni mooy mooy lépp sëriñ Touba moom la la Serigne Touba leen jàkk tubarkalla masalla ni ko demal lagan ma fekk la fa la fa gën kon yaakaar naa tey ku ñëw fii tey xam ni tubarkalla masalla bis bi yéeme na tey ku baax ku tey taxaw na fii tey. ngir yàlla ak yonte bi jëmmi sëriñ Tuubaa ak Seex Isaa ci ñaan jërëjëf yaa booy ma man yow tamit yaa ngi woon sànq fii nga xam te moom mu di kon euh, ci euh, kër docteur euh, doon saytu sa wàllum wér gu ci bëccëg gi ñu jagleel maam Seex Isaa Jeen nga am ci ban jàngat xanaa di rek tey ñaan gërëm wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bi di ñu leen ñaanal fan wu gudd loolu ànd ak wér te lépp lu ñu fi def te maam Seex Isaa tax rek yal na leen yàlla fay ngeen gi pay dëgg yàlla ndax ñun yàgg nañoo ñëw ci journée bi waaye heure bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla dañuy ñëw fii ñu jox ñuy garab ku ci am lu lay metti kon nag dañuy sant rek di ñaan taxawaay bi yàgg waaw te sax am nañ mbégte lool kon mu nekk euh, sunu yaay moom di génne ci barab bi nga xamante ni moom mi ngi waajal euh, euh, li jëm ci saytu wàllum yaramam ba génn sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di siyaar bu wër sama yaay du taalibi Cheikh Issa. dëkk Njanelagan ñëw fii foire ci bés bi tey waaye yéen seen taxawaay ci bés bi moom dafa ala daw mi ndaxte lu am solo la ndaxte wér-gu-yaram mooy lépp annonce bi ci biir lañ ko yëg léegi ne xaar leen doxantu ci docteur yi ñu xoolañ suñu yaram ndaxte lii dara génn ko yal na suñu borom yal na leen suñu borom defal taw feex ci bes bi nga xamante ne Cheikh Issa loo ko defal loo ko liggéeyal mu fay la seen taxawaay ji rafet na. Mm, waaw dañoo ñëwoon si journée bi Cheikh Issa Diène bi waaw ñu gis ne jeune moom macha allah euh, liñ jot a gis daal kàddu yi rafet na njàng mi tamit neex na torop macha allah ndax ñu amul kenn ku dul Cheikhul Khadim waaw. nga si barab bi mel ni daa am loo yëg sa yaram. waaw man dama amoon kii nag benn métit ma ñëw pour xool si ko ci dayee sa si saal bi laa ko dégloo ma ni xaaral ma ñëw xool si ba xam naka nga gisee lu nu mel ñu def ko ci barab yu mel ni genre consultation. waa c'est extraordinaire macha allah parce que nit moom amul lu de wér gu te ku julli ku nekk tamit euh, loo njëkk ñaan sa borom rek mooy wér yaram gudd defan ak wér gu yaram kon nag loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax daal macha allah. mi ngi noonu kon euh, di euh, fi nga xamante moom moo di kon sa liir euh, bi ñuy defee consultation gratuite yi nekk ay innovation ci journée bi nga xamante moom lañ jagleel maam Cheikh Issa Diène donc bàyyi liggéey bi di wéy ak docteur yi nga xam te ñoom la ñuy déployer sur place ñu ngi koy gën di wéy di consulter mag ak ndaw gone ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi sant dara seen wér gu yaram moom mel ne dañuy déplacé wu tuuti ndax am na ay délégation yu commencé di ñëw ndànk-ndànk ñu daal di kon ànd ak sama technicien fas yéene ne jox lépp lu jëm ci les temps forts de ce الكرم وفاز بالقرب والرضوان بالخدم ابو القديم ومصباح طريقته باستنارت لمن يمشي بلا ظلم فدنادي مناريب ماخذ يقظ بر كريم جواد مخجود يمين rabbul jifaan yi la di daaban xadim talaat bil rusi wal ami wal axbaasi wa dasmi wa bi mataay mi araaka la muftaxirun bi sabxili day fi min xurbin wa min ajami amaada yaa ulaata saa ala aadin بالنطق بالفم أو بالخط بالقلم وزير شيخ على رغم الرشد فكم أتاه ما فاق من باد ومكتتم ما لي لمصر ولا فيما أوى عرب لكن بتجار أروب درى تميم عيسى ابن مريم عيسى جن قد سطعت أنواره فاعتدى بالفل كل آمين ونعلم balai des autorités, euh, des délégations qui euh, viennent ici donc prendre part à cette grande euh, manifestation religieuse dédiée à Serigne Cheikh euh, qui présentement ici donc euh, à Euh, donc au CICES di bëccëg gi nga xamante ni mi ngi am ci fii ci CICES ñu jëgalee ko Serigne Cheikh Issa Diène euh, fii ci biir saal bi nag ba tey euh, liggéey baa ngi wéy di am waaye fii ci bunt bi gis nañ bu baax gan yi ni leen di gàttanoo ni ñu leen di terale ni leen di teeroo ngir ñu mën a dem ci biir toog jël place waajal waxtaan wi waaye laataa ñuy dem ci salle bu mag bi dafa am ñoo xamante ni dañ leen di accueillir fii ngeen gis ko ci buntu salon d'honneur bi foofu sax la ñu daal di dem saytu gan yi nga xamante ni ñu ngi ci biir salon d'honneur bi ñenn ñi buñ leen mënee sax laaj mm, gis seen taxawaay ci bés bi ndax bés bi euh, bés la boo xamante ni euh, mën naa jàpp ne umma islam bi yëpp a ko moom ndax ku wax Cheikh Issa Diène xamoon taxawaayam ci wetu Cheikhul Khadim xamoon liggéeyam ci lislaam ci tool lislaam bi waaye ak taalibeem gi nga xamante ni wane woon na ko euh, moom ji jëmm ji sell joo di Serigne Cheikh Issa kon tey ji mooy journée culturelle bi nga xamante ni aada woo nañ di ko amal maanaam traditionnellement dañ koy tenir fii ci Cissesse kon ngeen gis ne euh, fii ba ngoon daañ fi yendu jàng xasaayit jàng alxuraan ju sell ji waaye te jox ay conférencier ñi ngi annoncé ku mel ne Serigne Gana Messere bi nga xam ne Makhtar euh, moom at bu jot tamit ba at bii wees rek mi ngi fi doon def conférence bu am solo la ci yoonu mouridisme moom incha allah daañu taataan ay euh, kàddoom ndax dana def conférence bu am solo mu mel ne koon bés la boo xamante ni génnu dara lislaam ndax fu ñu jàng alxuraan jàng xasee Serigne Touba yi joxe xéewal yi waxtaan yeewaat nit ñi gindi leen tegal taxawal lañ ci euh, diine lislaam yaakaar naa ne loolee amul dara dara lu ko gën a féete kaw euh, bay sa waar ci toolu lislaam bi kon loolee yaakaar naa ne euh, moo unnu bis bi mooy sabab bi tey yaakaar naa ne lu ñëpp war a mën a rafetlu la xudumi sayiduna muxtaaru munaatimu bu saarana ma saaral lislaami kulli mo is yantafi durra wal basa wal adamu borom dem na ba ñëw yéen murit nuy si leen bég leen ta sant Sëriñ Tuuba te dellu ndamu murit yéen jóg leen si yaare ñi waare mi sargali leen alaaji seex anta yor nay mboot yu rëy yu lamu maraba yaa seexu anta yow de mbaate jàmm nga am malaaj la waa seegu ak ñey korote ak ñey xërëmu maraba yaa seexu anta mbaate jàmm nga am malaaj la waa seegu kon dañuy woy liggéey bi ñu dem ba ci salon d'honneur bi xool ñi nga xamante ñoom ñoo di euh, euh, les invités yi nga xam ne ñëw nañ euh, nga xamante ni duñu bës bi saa su nekk rek am na ay këru diine yoo xam ne dañ ñëw teewal fësal seen yéene fësal seen taqo ak bës bi naam ñenn ñi sax bu ñu mënul ñëw danañ jabal ay ndaw wane ne ñoom kat bés bi mënuñ ko wuute ndax euh, bés la boo xamante ni lislaam lañ ko jagleel ndax ku wax Cheikh Issa Diène mënoo génne daray lislaam koo xamante ni euh, lislaam ko wax néegu yàlla di juma tabax nañ grande mosquée bi ñu tabax fële ci njaareem boog gis nañ euh, taxawaayam ndax ci moom ci jëmmam moo yëkkati ci gafakaam ay koppar ci jamono jooju mu jafe woon lool jënd pàkk ba ba Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadim Sol taxawal ko kon ku wax lislaam wax néegu suñ borom kon yaakaar naa ne comme bu ñu nee Cheikh Issa Diène génnuñ euh, lislaam ndax nag taxawaayam bi mu wane woon ci watu Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi kon niñ ko waxee sànq rek di wéy liggéey bi fii ci CICES di barab bi nga xamante ni ñu ngi fi amal tey euh, journée culturelle ñu jigale ko maam Cheikh Issa Diène euh, ni mu ko waxee sànq rek c'est le balai des autorités euh, religieuses et politiques fii mm, nga xamante ni moom la la ñuy amalee événement bu am solo bi ñu jigale ko kenn ci l'islam kenn ci yoonu murid di maam Cheikh Issa Diène noonu rek la ñu daal di dem kon xool ñi nga xam ne ñoo di gan ñëw fii ci salon d'honneur daataan seen i kaddu ci yëg-yëg gi ñu am ci bëccëg gu am solo gi nga xamante ni ku tedd ku baax ku mag rakk lañ ko jëgleel muy maam Cheikh Issa Diène euh, donc mu nekk un événement important et symbolique qui réunit chaque année des milliers de musulmans tous euh, quand même euh, ngir delloo njukkal également kii di euh, donc Serigne Cheikh Issa na ci noonu rek la ñuy daal di dem kon euh, ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi euh, ci jiitu mu mel ne nekk nii ñu ngi fi ak ay sang yu baax yoo xam ne ñëw nañ teewal fi ay ay këru diini teewal fi tamit ñenn ci seen ko wajur mu mel ne sang bi ñu ngi lay nuyu baax di laaj ci tur lan mooy sa yëgeeg ci bës bu am solo bi yaa ngi en direct ci feex Production ñooy def direct événement bi. waaw yëg-yëg biñ ci yëg de xanaa wax ak cant rek ak mbégte ndax bis bi ñuy defal suñu maam Cheikh Issa Diène dara jaaree ko suñu ñaari maam yi mooy Cheikh Sidi Mokhtar borom gaawaan ak Serigne Afia mënuñoo def lu dul am ci mbégte rek ak rafet lu ko bu baax a baax. tamit ñu ngi fi ak sa su Diène moom it euh, ñëw ci bésu maamam bi euh, nga xam ne bés la bu am solo euh, taalibe yu bëri fa ñëw fi ginnaaw bu ñu jógee Porokhane ñu ñëwaat fii ngir amal bésu am solo bi sëñ bi ñu ngi lay ziar di la laaj say yéene ci bés. alhamdulilah ñu ngi leen delloo ziar di nuyu di nuyu mboolem ñu ni ñu ni ni seetaan ak ñuy déglu ñëpp bis bi moom dañ ci sant yàlla bu baax rek ndax bisub sant yàlla la ndax fàttaliku nit ñu baax ñi moom ci ci sant yàlla la bokk at tahaddus bi nihmatillahi sukkuroon kon ñu ngi sant yàlla bu baax tey dalal suñu mbokk yi fi ñëw di njabootu maam sa Anta doonoon doonoon kenn ci Serigne Touba. doonoon itam koo xam ne mënees naa seere ci moom lu bari kon nag moom bu fekkee dañ koo dara jàll Cheikh Anta day mel ni rek bis bis maam Cheikh Anta ko moom ndax moom ak Cheikh isa benn lañu te lépp itam Serigne Touba la dara génn ko ci cër bi maam Cheikh Anta am ci Serigne Touba rek xajul ci bis xanaa dañ ciy def li ñuy wax ishaaru niyetan dañuy feeñal yéene rek ak dundal ak mbokk ak itam feeñal sunu cofeel ci ñoom waaye ñoom ni ñu teewe ak ni ñu ñëwee itam sunu xol sedd na ci bu baax kon bis bi moom lépp lu ci waay def rek ñun ñun nga ko defal kon ñu ngi leen di sant bu baax tey ñaan yàlla nañ ko yàgg siq te dajee cee ngërëmi sangu yu baax yooyu nga xam ne ñoo am lante woon dem Serigne Touba ba ak ci seenu jabar ñeen ñi jot li lii itam ba bokk taalibe yi ko fekkiwul ak ñi am ngànt man koo mën koo bokk ñun tam ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm jërëjëf asalaamaaleykum. mu nekkoon kon Serigne Youssou Dieng doon nañu ko ci kàddu yooyu ci bés bi ñu jagleel maamam waaye ni ma ko sànq c'est le ballet des autorités religieuses et politiques ñu ngi fi ak euh, le président Déthié Fall nekk candidat à l'élection présidentielle euh, prévue donc euh, le 25 février 2024. Euh, monsieur le président euh, nga ñëw tey fii ci Cissé euh, ci bës bi ñu jëgle maam Cheikh Issa mu nekk mbégte waa kër gi njaboot gi ci teewaay bi ku nekk xam ne agenda yi jamono ji xat na jamono ji ñu ngi ci contexte électoral ñu ngi ci xat-xat yu bari waaye nga jaayante ñëw teew ci bës bi ana lan lañ ci mën a taataan. di leen nuyu ku nekk ci turam ak santam di am mbégte bu rëy ñëw fekkee bis bi nga xam ni ku ci sunu boroom boole fekk la Sénégal ngay taalibe mënoo def lu dul yittewoo ko loolu moo tax comme ni nga ko waxee ñu ngi jëm ci élection xat na wante lu mu xat-xat tànk yi mënul ñàkk ndaxte dafay doon tànk kóllëre tànku yeesal taalibe tànku kóllëre ndaxte kenn umpalewul sama waajur wu góor di patefal taxawaay bi mu mos a am ci wetu njabootu Cheikh Issa Diène taxawaay bi mu mos a am ci yoonu murit bi taalibeem kenn mosu ko nattable ba yàlla def na fii may wax ak yow bi suñu borom defee li gën ci moom def ko li gën ci sama waajur bu jigéen ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi fële ñu denc baax ya baax ya woobu ku xam histoire bi xam ni bi ko sëñ Abdoulahat joxe famille Cheikh Issa moom lañ ko dénkoon mu doon def travaux yi ak ñam ca àndaloon kon loolu kóllëre la waaye it taalibe gi ndaxte ñun kenn umpalewul ñu ay murit lañu murit sadeex doon it ki nga xam ni di famille yu Cheikh Issa kenn umpulewul fi ñu teg ñu fi ñu toll ci ñoom ba yàlla def sax yàggul xëy ci ay ñaari weer rek lay mat bi ñu tàmbalee parrainage fii ci génn xalif général nga xam ni moom mooy kii di seen Abdou Latif da ko fekk fii Ndakaaru bis boobu ci moom laa dem tàllal ko fiche bi mu ñaanal ma ci mu doon ki nga xam ni it yàlla def na moom laa gën a miin ci njabootu Cheikh Issa yi ndaxte bi ñuy nekk gone moom moo doon ëpp la muy ñëw kër ga Ndar doonoon sëriñu sama papa doonoon wëllëreem ñu ñu doonoon également ay doomam doon ay taalibeem di ñaan suñu borom yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram ba mission bi nga xam ni ci sëñ Touba ci famille yu Cheikh Issa Diène it mu mën ko mottaleeg sago di ñaanal di nuyu di it gërëm di yeesal suñu taalibe ci xalif général des Mourides muy sëñ Mountakha Mbacké nga xam ni yàggul rek mat na xëy na ñeent fan laa ko fekk fële Poroxaan mu ñaanal ñu di dellu kon dal di am mbégte gu rëy di fi fekk suñuy kilifa suñuy sëriñ fekk leen fii di leen ziar encore une fois di ziar bépp taalibe fépp foo mën ne ci biir àdduna fépp foo mën ne ci biir Sénégal di wax leen mbégte bu rëy lan fi yegsee ànd ak ay kilifa ci biir parti bi Mandiaye Sylla di chef de cabinet bi ak it kii di Mame Thierno Diouf doon conseil spécial doon ñaar ñi nga xam ni seen taxawaay kenn mënu ko naatable doon it ay taalibe mu dut yu wér a wér jërëjëf. ba ki am ci contexte bu jëm ci ay élections euh, ban ñaax ngay ñaax euh, ndax ñi fi ñëw ay taalib lañ waaye ci ay parti politique la ñuy sosu wala la ñuy bokk euh, taxaw wala bokk ñu nekk ay militant wala sympathisant ban ñaax nga leen di ñaax ci contexte bi ñu nekk nga xamante ni war nañoo war a mën a ñaan jëm ci ay jongante yu dal ki yàlla suñu borom tànn mu jiite réew mi ba waat yàlla na doon yow. amin ñaax bi moom mooy yoon bi nu sëñ bi teg yoonu jàmm ak liggéey yoon boobu moom képp kuy taalibe mënoo wàcc yoon boobu ca la ne yoon boobu la ñuy digle it ku ne ndaxte ku ci ne gis ci njariñ te Sénégal xat na ñépp mbokk lañu kon daal di ñaan lii nga xam ni ci la jëm yàlla def ci ndox mu sedd Sénégalais yi ku ñu tànn rek kooku mën a jiite senegal te la ci ëpp solo du doon jiit gi wante la ci ëpp solo mooy liggéey ba nuy xaar ci yow nga mën ko def ba sénégalais bu nekk gis ci boppam gën a kàttanal diine ji it tegu ci yoon bi nga xam ne moom la sëñ bu mag bi teg jërëjëf. am ngi noonu kon nekkoon euh, kàddu yi monsieur le président euh, Déthié Fall parti PRP nekk également euh, candidat ci élection yi ñu dëgmal nekk également ko xam xamee nañ ko ci géewu politique di acteur politique di kon fii ci salon d'honneur bi ak invité yi nga xamante ñi ngi fii ñëw. ngir fësal seen jëmm ci bëccëg yi ñu jagleel maam Cheikh Issa Diène euh, ngeen di ñu suivre en direct ci Tawfekh Production dañuy delluwaat ci saal bi ngir topp jataay bi incha allah dara duñ ci ump ci kanam lay doon. monsieur le maire de la commune de Ndiéné ñoom it daanaka bés bi euh, yaakaar naa ne kenn ëppalale wuñ leen ci euh, monsieur le maire ginnaaw boo présenté woo euh, ba nuyu mbokki internet yi ñuy seetaan nga faat nga wax ñu rek naka nga dundee bëccëg yi xam ñu ko jagleel maam Cheikh Issa Diène te ku nekk xam ne barab boobu nga jiite tey jii am na fa taarix bu am solo. waaw bi maa ngi lay ziar bu baax man maa ngi tudd Djilass Pouye dëkk. Ndiéna Lagane nekkum actuel maire de la commune de Ndiéna Lagane euh, li may wax rek mooy li may commencer mooy mën nuyu euh, mbooloo mi fi teew yëpp ku ci nekk ci turam ak santam ci diital ci nuyoo boobu la xalif de maam Cheikh Issa muy Serigne Abdou Latif Diène su ma tegee nuyoo bi ci loxoom na ko jàllale ci njaboot bi yëpp ak ci kilifa diini yëpp Ah, li nga sentiment bi nga xam ne nag moom laa am ci bés bii dama yàgg di ko teewe parce que teewe naa ko daaw teewe naa ko ren itam di ñaan yàlla itam teewe ko ay déwéni déwén sentiment bi nga xam ne moom nga ma laaj ma am ko ci bés bi mooy bésu maam Cheikh Issa Diène la di semaine culturel maam Cheikh Issa Diène ñu jagleel ko sëriñ maam euh, Cheikh Anta borom gaawaan ah ku xam Cheikh Issa Diène xam maam Cheikh Anta nga xam ko ak dans la famille de Serigne Touba. ñu def fa la nga xam ne nag mënuñ koo jeexal ci benn bés xanaa ñu am leen luñ ci jukki rek ci seeni dund eh, ñu dundale ko ci bés bii nii muy semaine culture lu maam Cheikh Issa Diène mhm. bëccëg gi eh, comme ni ma ko waxee sànq njëriñ daf ci am pàcc bu rëy naka lañ koy waajalee. waaw niñ koy waajalee mooy que ne am na commission scientifique ak culturelle ba nga xam ne ñoom ñoo koy def. Eh, ci loolu ay du benn bés lañ koy waaj wala benn weer daanaka su su jàllee rek daanaka dañuy commencé waat nekk ci ci démarche yi nga xam ne noonu lañ koy doxee et là auprès des autorités parce que itam euh, autorité bu nekk mën nga ko fi gis parce que nag itam fu nekk waa taalibe Maam Cheikh Issa Dieng ñu nga fa kon laa ci ay autorités yu bari dinañ dem ci ñoom solliciter leen ci fa nga xam ne foofu mën nañ fa féete ñu def ci li nga xam ne loolu lañ ci war a def ñun itam en tant que autorité muy muy maire de la commune de Ndiéné Lagane ni nga xam ne noonu la ko taalibe bépp taalibe di ko waajale rek ñun itam noonu lañ koy waajalee lépp la nga xam ne mën nañ ko ci ci suñu moyen permettre nañu ko également amuñu lenn luñ ciy luñ ciy réserver ci loolu lépp luñ ci mën ci wàllu moyen ci wàllu euh, finance mm. ñun dañ ko ciy def ngir boroom bés bi waaw. jaajëf bu baax. waaw sëñ bi itam ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ci yéen. Euh, mu nekk kon délégation yu am yi nga xamante ñi ngi ñëw fii ci salon d'honneur bi euh, di fësal seen teewaay ci bés bi mu ne kilifa yi ñooy di ñëw ngeen gis noonu ñuy jaare bu baax a baax sëriñ yi nga xamante ni ñi ngi ñëw ci jataay bi mu nekk lu am am solo. mu nekk lu am am solo nga gis taalibe yi niñ leen di kataloo mu nekk lu am am solo ñu ngi noonu sëñ Galas Jenn moom sëñ Abdou Latif Jenn ak sëriñ Sidi Jenn moom sëñ Abdou Latif Jenn ñoom nag ñoo ñëw nii ci jataay bi sëñ Abdou Latif Jenn di xalifa moom si Isaa Jenn bu baax a baax nga xamante ni ñoo ñëw teewal eh, tey ji eh, sëñ bi ci bés yi nga xam ne moom lañ jagleel eh, maam si Isaa Jenn ku nekk xam ne ne euh, Serigne euh, Abdou Latif Diène moom mooy xalifa bi kon mu nekk euh, lu am am solo fii ci salon d'honneur bi kilifa yi di woy di ñëw ngeen gis bu baax niñ leen gàttaloo niñ leen tertoo niñ leen terale ñu daal di ñëw fësal seen teewaay ci bëccëg gi mu nekk lu am am solo ñu wéy rek di leen dundaloo image yi ngeen gis noonu ci salon d'honneur bi mbir yaa ngi xew ca salle ba waaye fii am na yu am solo fi xew ndax sang yu baax yi nga xamante ñëw nañ teewe jotaay bi jotaay bi yi nga xam ne ñu ko jagleel Euh, kenn ci euh, lislaam di maam Cheikh Issa Diène kenn ci yoonu murit di maam Cheikh Issa Diène euh, kon sëñ Galas Diène ak sëñ Sidi Diène ibnu sëriñ Issa sëriñ Abdou Latif Diène moom maam Cheikh Issa Diène nga xamante ni seen wajjur moom mooy maam Cheikh mbokk yi ñuy seetaan nañ ko waxee sànq rek ñu ngi ba tey ci bëccëg gi ñu jagleel maam Cheikh Issa Diène euh, njabootam nag ñu ngi ci barab bi ndax ku wax euh, sëñ Abdou Latif Diène xam ne moom mooy leerug Cheikh Issa Diène mooy tamit jëmi maam Cheikh Issa Diène ak njabootam ñi ngi fi ku ci mel ne seen Mouhamadal Euh, Fadel ak ki nga xam te moom moo di kon euh, Serigne Sidi euh, ginaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax rek dañuy fa yéene taataan seen i kàddu ci bëccëg gi nga xam te ni ñu ko jagleel seen maam te koo xam xamoon ko te xamoo Cheikhul Khadim waaye liggéey bi mu def ci yoonu murit rawatina yoonu lislaam tamit. aousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk mi ñëw ngi deloo nuyoo di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu di am mbégte ci teew bi ñu teew fii ci bis bi ci ndigalu Cheikh la Latif Diène mi nga xam ne moom la yàlla jiital ci kanam njaboot bis bi di bis bu ko ñor ak njabootam taxawal ko di ko saytu ba mu egsi fi mu egsi loolu waral suñu teewaay tey ñu ànd ak euh, sëriñ Fallou sama rakk ak El Hadj Basirou di kenn ci taalibe yi ñu ñëw teew si bis bi ànd kook ñoom kon ñoo ngi sant bu baax kuréel bi nga xam ñoo ko taxaw mooy sëñ Cheikh jenn ak ñi mu àndal ñëpp ak nag mbokki taalibe yi fi def ñu wuy si ci woote bi ndax sëñ bi moom daa amul dara lu ko gën a ñor te lii bokk ci liggéey bi nga xam day gën a feesal feesal liggéeyu Cheikh Issa ak taxawaayam ci kër Sëriñ Touba ndax maam Cheikh Issa mos am beneen taxawaay bu yittoo mbirum Sëriñ Touba ak nekk ab taalibe bu koy liggéeyal loolu nag lii day bokk ci li koy firndeel te jamono ji egg foo xam ne woote yi bari na ak yëngu yi waaye bokk na ci yëngu bi nga xam ne mooy liy gindi nit ñi di leen teg saatal mustaqima kon noo ngi sant ci turu sëriñ bi di soññuwaat mbooloo mi ci ñu gën a yeesal seen pas-pas ak gën a yeesal seen taxawaay ci doxin wi waaw loolu daal ci gàttal rek moom la ñuy barkeeloo ci bis bi bu ko defee nag leneen gis moom bu eggee ba ci biir rek des na gën a leer incha allah jërëjëf. kon euh, ñu daal rek tamit taataan ay kàddu yu sang bi Cheikh Mouhamadou Euh, ci sa bésu bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wasalaatu mbokk mi ñu nuyu bu baax di siyaare daanaka kàddu yi xam naa du am solo lool comme sëñ Sidi mi ñu fi àndal bu suñu kilifa yëkkat na ay kàddoom muy kàddu nuyu ak kaddu cant xanaa ñu feeñal seen mbégte rek di wax ni sëñ Abdou Latif mi nga xam mooy xalifa Cheikh Issa moo nu fi yebal ak euh, sëñ Sidi sama mag ak ñi ñu ko àndal ñëpp ñu teewe bis bi bis bi nga xamante ni waa jamaahiratu tawdih wa nasr li injazati maam Cheikh Issa Diène ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy amal mooy wax ni jëmmi jëmmi tur bi rek lim symbolisé rek loolu rek doy na doy na daje fi léegi nag dajale fi mbooloo mi ñuy jàng alxuraan ak di def ay conférence di fàttali maam Cheikh Issa di ko fàttali talib yi di fàttali mu dund na ci kanam sëñ Tuubaa loolu am solo la ci topp it mooy ñi ñu ko tuddee muy sëñ Afiye Mbacke imam ak magam ju baax di maam Cheikh Anta di ñaar ñoo xamante ni ñoom wax naa ne ñëpp lañ ko tuddee waaye ñoom ñaar ñoo ci raw ndax sëñ Afia doon wëllëri Cheikh Issa lool lool lool lool ba tax na dégg naa dafa daan wax ne sëñ Touba ñëpp bàyyi nañ leen ñu dem ba de des sëñ Afia ndax moom da ko téye def ko imaam ci wetam kon nag kenn ku nekk am na loo ko war lool maam Cheikh Anta yi noonu la demee woon ak moom nit la koo xam dañoo joxasoo woon lool kon nag bu ñu yëkkatee bis bi tudde ko ñaari jëmm yooyu li wolof dañoo delloo mbattu ca ca ca ca ndaa la moo ci am ndax ñaari jëmm la ñu woon yoo xamante ne dañoo taxawoon Cheikh Issa ci njaareem ak ci bi sëñ bi demee ci géej gi yëpp kon bu njëkkatee bis bi tudde leen ko loolu day lu am solo te it ñaari ñetti famille yooyu day daanaka benn fami la jaxasoo nañ ci wàllu dencanteeg ci wàllu wu nekk moo tax loolu bis bi moom loolu gën na ko couleur kon nag ñu ngi koy rafetlu bu baax jotaay bi di ñaan lépp lu ñu fi ñaan ci alxuraan ak xasida yàlla na ko saa borom jotale ci jëmm yooyu saa borom yokk seen leer tas ñu seen barke bi jaay Ahmad Bamba Xaadim Rasul salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mo moom tamit ba tey ci uh, bëccëg gi ñu ngi fi ak uh, Serigne Bassirou moom it uh, Guèye ñang sëriñ Basir ñang nekkit ci taalibe ci njaboot gi euh, ci yoon yi waaye it nekk ci bërëbu liggéeykaay bi ñuy wax euh, Seras do am fa taxawaay bu am solo euh, ginnaaw bi nga xamante ni seq ngay jéego ñëw ci barab bi ñuy waxtaanee ku tedd jëgle ko moom Cheikh Sadiane yan kàddu lañ mën taataan baax ko mbokk taalibe yi topp Tawfekh Production auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar euh, di leen xamal ni leen ni ñun kat dañ fi ñëw rek en tant que taalibe waaw taalibe lañ ci kër gi ndax borom njënd moom dafa sama maam dafa wëllarante woon ak moom ba sunu lépp di njënd ba tey jii loolu di dox di dox di dox di dox moo waral tey jii euh, ma ànd ak sëñ di Dieng mii nga xam ni moo fa représenté tey xalifa bi. ak sëñ Fallou Diagne rakam waaw man nag may seen taalibe waaw bis bi nag euh, bis bu màgg la bis bu am solo la ku xam taarixu yoonu murit di nga xam Cheikh Issa Diagne ban taxawaay la si am di nga xam ni nga ko tuddee mooy maam Cheikh Anta ak euh, sëñ Afe euh, ñoom it yan taxawaay lañ amoon si yoon wi waaw mais solo bi si gën a am solo mooy journée culturel dafa am loo xam ne si moo ko tax a jóg mooy maanaam waxtaan yi ci koy mag ñi te fii ñu toll nga xam ne si tey yar dafa tumuranke jikko yi yàqu ñuy gis yoo xam ne di ko dégg amul woon xamuñu ko woon dafay jaadu ñuy def ay journée culturelle mel ni di waxtaane ñoom seen jikko waxtaane seen i taxawaay pour ko mel ni xale yi tey jii mën si di taataan mën ni si di loolu mooy li nga xam ni moo gën a am solo si bi ñu koy rafetlu wax dëgg yàlla ah, di ñaan yàlla suñu borom ah, defal ñu réussite bu war nga xam ne lii nga xam ne si man moom laa wax Eh, te ñoom it ñi ko organisé xam naa ne loolu dañ ci jublu eh, mu muy muy njëriñ ci askan wi si Sénégal ak mboolem mu jullit waaw di sante ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf yàlla nañu ko teewe at yu bare bare bare di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké Serigne Touba mu yàgg fi lool te wér ba li mun naa rek li mu yéene li mu bëgg lay yoon yëpp yàlla suñu borom kàttanal ko di ko ko ñaanal xalif général Baye Fall di ko ñaanal ki nga xam ne si mooy sëñ Abdou Latif Diène di ko ñaanal xalif généraux yëpp jërë ngeen jëf wasalaam nee na Yaxya dafa ragaloon yàlla topp ñaari waajuram te nekkul woon ab agresseur maanaam daw tooñ kenn du defal kenn dara lu dul jur jàmm nitu jàmm la woon moo tax yàlla am mayoon ko jàmm wa kaana taqiyan wa baran bi waalidayhi walam yakun jabaaran asiya ñett yooyu ku ci nekk danga am jàmm ragal yàlla lool fonk sa ñaari waajur lool ba noppi maandu ci sa digganteeg mbindeef yi doo indil kenn ay loolu la ya yaa meloo woon de suñ boroom ni suñ borom may ko jàmm kon loolu bokk na ci système bi mayee jàmm waaye moom saaboo boo nekkee agresseur di tooñ di def yenn yi doo am jàmm ndax ataa yonent yàlla Moussa ba ko natt ba dalee ba bakkan dem ci loxoom sax ataltu minhum nafsan fa axaafu an yaqtuluuni ndax boo defee lu dul noonu rek sam xel dootu dal dama an kat daa nit moo tax moom fii ne sam xel dala tut ndax toujours yaa ngi defe ni ñi nga def lañ lay def loolu boo tëree doo nelaw moo tax toujours boo bëggee am jàmm del jàmmale eh, kon bokk na ci lii mayee jàmm nga jël melaw yax yax yaa woowu ragal yàlla fonk sa ñaari waajur ba noppi nag bañ nekk kuy tooñ bindeef yi ba tey bokk na ci nga meloo melaw yoon ci yàlla Isaa moomu ñu la waxal ni yàlla may na ko jàmm Isaa nu meloon waaw seeni bi salaati wa sakaati maa dumtu xayyan wa baran bi de walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya nee na yàlla daf maa dénkan may jaamu yàlla jaamu yàlla nag bu ñu koy tudd ci alxuraan toujours julli la ñuy publier nga dégg ko waaye xeetu jaamu yàlla bu nit nekkan rek salaatu lañ ko daa wax ñoom donte du woon gii mu ne yàlla dafa maa dénk may sax ci jaamu yàlla tey joxe ci sama alal asaka ak di dimbali jaam yi feeg may dund ak di toppatoo sama yaay moom amul baay moo tax moo tax mu wa baran bi wàllu ba noppi mu ne yàlla nag booleel na ma cee jox ma jikko yi nekkuma nekkuma maanaa ab tooñkat du ma du ma agresseur man duma ma def bind na ma may ku maandu sama digganteeg bindeef yi du def kenn naka su dul noona moo taxit def na ma may ku du ma texee di ndekete agresseur du texe wala mu yekkun jabaaran shaqiya nga xam ne jabaaran moom foo ko fekk shaqiya rek mbokk yi ñuy seetaan Tawfekh Production ñoo ngi fii ba tey ci CICES ngeen gis bu baax a baax euh, xéewal yi nga xamante ni moo ne sama ginnaaw fi mooy waañ wi ndax ko xam ndaje murit xam joxe xéewal ak berdel ak euh, lii di rek euh, ñam yi loolu nag Cheikhul Khadim moo ko mosoon moo ko rek daanaka baax woon di sàkku ci taalibe yi ñu koy amal maanaam fu ñu jàngal xuraan yi yëkkati xas yi dañ fa joxe berde xéewal yi ndax ku xam màggal Tuubaa xam ko ci joxe xéewal lim naan bul xeeb ginaar ba ne mët waaye bul naw gilam yéem ko ba ne ëpp naa rey ndax bi ay julit ay euh, doomu aadama kat fi ñu dajee war nañoo xéewlu bu baax a baax ba sant yëg cant ga cant googee nag moo waral tey kii bés bi ñu jëg maam Cheikh sa Diène ñu ñëw fii ci waañ wi seet si waa waañ wi naka la ñu amalee liggéey bi naka la ñu euh, defee liggéey bi am na seen jëwriñ nag daañ leen taataan diglu leen ndax ku nekk xam ne ne ñi sant Diop fi mu nekk nii yàkkamti nañ euh, gis nañ bu baax xew-xew yi mbir yi ni mu demee nii kon bu baax a baax dañuy daal di wéyal liggéey bi bu baax a baax incha allah am mbég ngeen gis bu baax a baax mu mel ne dañuy daal di rek xool mbokki taalibe yi soxna si ginnaaw bu ñu la nuyoo bu baax sant la euh, tey yaa ngi fii ci waañu waañ wi ci bëccëg gi njëgle maam Cheikh Aziz Diène nga jiite liggéey bi euh, dañu lay laaj rek naka nga ko waajalee naka ngeen defee liggéey bi xanaa bëgg Cheikh Issa yaakaar Cheikh Issa tey ak ëllëg fas yéenee sonn nag ci Cheikh Issa xam ne Cheikh Issa sonnal ko njariñu fii la ak fanu jëm yaa ngi may dégg Cheikh Issa jeexalul dara joxe ñam loolu la rawe góor ñi barke Cheikh Sadiane gis nga ko lépp a ngi nii dara dara dara dara manqué wu fi dara dara suñ yëpp a doy ñu ragaluñu fii ragaluñu fa ñu jëm ndax Cheikh Issa ak waa këram barke sëñ Abdou Latif Diagne barke sëñ Abdou Latif ziar bu baax sant borom ñeene bu wér a wér a wér a wér moom la ñuy dawal suba moom la ñuy dawal bëccëg bu xisee woote rek tallatuñ dara ñu ngi sant bu baax togg ñam yàq joxe rek lañ xam waaw barke Cheikh Issa ñoo xam ñaata mbana lañ taal nañ ñaar fukki mën ak juróom waaw bokkut ak reer bi waaw macha allah mis yi xar yi nag yi macha allah dara dara desul gileem sax nañ ko waaw ca kaw ca kanam rek sant rek. am na ñu jàpp ci xam ne duñ ay daara. waaw ñëw laxasaayu rek defal Cheikh Issa rek waaw. yal nañ ko teewee na ni a déwén ci barke Seydina Mohamed waaw defal leen wér ak wérle waaw. mi ngi noonu mu nekkoon euh, ay kàddu yu jóge ci euh, ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci waañ wi euh, ni ko waxee sànq rek ndaje murit moom xéewal daf cee baaxoo am solo ngeen gis bu baax a baax miche yeeg xéewal yeeg ñi sant Jóob moom dañ bëgg reer yi ñëwagul añ yi dèjà ñoo nekk nii mu nekk kon liggéey bu am solo taal yëpp daje ci waañ wi waajal xewal yi ngeen gis sama cameraman di leen ko wan ngeen gis mbana yi ni mu ko waxee ñaar fukki mbana juróom ñu taal ko loolu day wane rek ni Euh, jaxaw ñam tamit dafa bokk ci lislaam dafa bokk ci ndaje murit rawatina laakaar naa ci carte d'identité murit da cee bokk ci joxew ñam maam Cheikh Issa Diène ndax garaatub Cheikh moom Serigne Touba moo ko takkal di médaille bu am solo ndax liggéey ak tarbiya bu mu def ci wetam ba tey ji mu am ko sanc ay dëkk yu bari sanc ay gox yu bëri waaye tey ji bëccëg gi ñu jagleel ko euh, mam Cheikh Anta ku nekk xam ko diggéem ak Serigne Touba ak imam euh, Serigne Afia nga xamante ni kon ñaar ñu taxawoon ak Cheikh Issa Diène la euh, ko wax tamit maam Cheikh Issa Diène xel dem ci ki nga xam ne moom moo di kon euh, sëriñ Abdou jenn Diène mi euh, kepp mi nga xam ne moom moo di leeram moom it ay njabootam ñëw nañ fi ku ci mel ne euh, Cheikh euh, nga xamante moom moo di euh, Mouhamed El Fadel Serigne fallu Dieng waaye tamit Serigne Sidi Dieng ñëw nañ fi ak Serigne Youssou Dieng ak mboolem ñi nga xam ne ñoo njabootu moom Cheikh Sa Dieng waaye tamit mboolem doomi soxna yi waaye tamit mboolem ñi yëngu ci wàllum politique Déthié Fall gis nañ ko fi sànq kon tey jii ñu ñëwoon ci waañ wi bàyyi leen ak sama caméra mu jox leen image yi ngeen dund ko ñu doog a dem ci li nga xam ne moo di kon delluwaat barab Cheikh Issa doo seen moroom sopp borom la gën ñi nu lay tëkkaleel Cheikh Issa doo seen moroom ku sopp borom la gën ñi nu lay tëkkaleel maam قد فعلوا dunu daay dunu dellu gannaaw asal ma faaxira Cheikh Issa Diène sul وفاز بالقرب والرضوان بالقدم آسى المفاقر شيخ سا شيخ سا شيخ سا شيخ سا ku sopp maami Sëriñ Naar génn sul kër mi wafa xaasa bil xurbi wa rilwaanu bil xidimi ubil xadimi wa misbaawu tariqati bi sanaarat liman yamsi bilaa sulami Cheikh Saay fatan riibun adibun muqisun yaqisul barun kare yaabud jawaadun muhjulul diyami Cheikh Saay Fatana ribun adibun moo xusun yaqiso dégg naa ci sëñ Baara na mu ne maam Cheikh Anta radiyallahu anhu tukki ba bi mu defoon Gosaas la ko Cheikh Issa xëy teel a dem fekk ko a dem fekk waxante naa ak moom ba mu wax ko wago yi muy nekk ba mu ñëwee daa dem ba ñu wañe wago yi ba toll ak moom mu yëg dugal boppam nii mu wax ak moom ñu waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan ba waxtaan a jeex mu dëpp door a ñibbi loolu sëñ Baara Jenn laa ko déggee Cheikh Mamadou Fadal mi ko fa njëkk a fekk bokk ci ñi ko njëkk a fekk ba muy dem laata muy dem ñëw na ci Cheikh Issa tàggu mu bëgg ci lool gën ko ci encouragé dem na ci maam Thierno Birahim tàggu ko leetar booba ba na gën a mën mii yor naa ci copie ba mu dikkaatee ba tolloog gu saas dafa ñëw kër sëñ Mat Jaw Paxa moom sëñ Fallu di lu wata bu ko andi njëriñ ngeen mu rendre compte Cheikh Issa rendre compte mu fa jëlee oto amul ci dëkk bi ñu wër wër oto amul ci dëkk bi mu bind ko leetar ne ndaw le bu àggee na ko teg ci loxo Cheikh Issa xamal ko ni ko sama waajur waa seeti woon fekk naa ko fa wax nañ lii ak lii ak lii ñibbi si naa nag damaa bëggoon ñëw jaarat ci moom ba wax ko li nga xam ne moom laa fa jëlee waaye ñu wër woto wata amul waaye téewul su ma ñëwee Madina mbooba lettre boo gisee loola ci ne copier mi ngi am su ma ñëwee Madina booba danaa ñëwaat ba ci moom wax ko la ma waxoon ak laa fa jëlee moom ci moom kon nga xam ni ànd bi dafa yàgg lool am na bi si Cheikh saa jóge dakaar ku ñu wax Ibra Diop mooy dawal oto bi sëñ Baara jënd ko nettali bi ñëwee bay toll ak Bambey boobu oto boo séen rek da xam ni kii maam Cheikh Anta bi ko Cheikh Issa séen ni Ibra Diop nii nii neen ni ko taxawal bu ko jiitu bu ko jiitu de bu ko jiitu mu bàyyi ba mu jàll mu topp ci ginnaawam mu signalé mu signalé mu topp ci ginnaaw mu signalé mu signalé mu mu signalé mu topp ci ginnaawam bañ egsi Dar taxaw tuuti may ko kilifa bu ne ko ci wata ba mu euh, summi ko ba solaat yeneen yëre ba toog mu yëglu ndaw la yëglu ko mu daal di ñëw fekk ko ci biir nuyu ko daal di sàkk ëddiyam daal koy jox xam ko ne ko maag yow ñu jiitlante ñi dafa waxtaan dafa waxtaan dafa waxtaan ba yàgg Cheikh Issa wax ko fa kàddu maam Cheikh Anta tontu ko ci boppam ni ko man de daa bari ñu ma xaw a suuxlu ci yoon wi lool te man daal xamul lu mu doon mu ne ko Cheikh maam Cheikh ne ko loolu de mënoo koo bàyyi loolu loolu nga def ba ñu bari wan la ginnaaw mënu koo bàyyi de. sëñ Abo mbakki mu sëñ Modou Mamoun moom Cheikh Anta ak sëñ Moussa Abdoul Akram mu sëñ Abdoul Akram mu sëñ Afia bi ñëwee itam fekkaat nañ fi suñu ndawi suñu beneen kilifa mu sëñ Sidi Mbakke mu sëñ Ibrahima Dar Mbakke moom it mu yónniwaat fi ak njabootam ñu ànd ak doomi boppam. ak ay taalibe boppam ñëw na nañ nañ ànd si ak ñun ñu def ko benn délégation ngir jëmmal si bis bu tedd bu rëy bii nga xam ne tànnal ngeen ñu euh, su ñaari maam yooyu tey tey jenn maam te li ci mat a wax lépp ci ñoom ñaar daanaka wax na lépp kon xam naa dañuy dañ koy tënk foofu ba àgg ca ca barab ba li ca des ñu mottali ko bi ñuy ñëw euh, am na addi jum ñu joxoon wax ne euh, bis bu màggee nii bis bu rëy nii kat faw danañ am luñ ci barkeloo donte ni dañ ci jënd tuuti café sax ñu def ko ndax ñoo yéen ñoo na ko bokk waa loolu loolu daal ko defee li ci des nag bu ñu àggee fee wax wax wax kàddu yi kilifa yi borom nu lay tëkkaleel maam Cheikh jiitu nga leen daana naar yaay faami sëriñ naar génn ñi nu lay tëkkaleel Cheikh Issa doo seen moroom voilà voilà naar yaay sa alay lay la lay lay lalo voilà nee na ku bëgg sa mbir yiwén adduna ak alaxira na nga jëm ci gaa yu baax yi gis nga Sëñ Tuubaa ni muy insister ci gaa yu baax yi te fi ne moo ne bu dee wàlli yu màgg yi muy tudd di ko tudd boo seetee ci biir ay gaayam am na ñoom seereel loolu wax na ñoom ca wàlli yu mag ya lañ bokk Cheikh Issa Diène mii ñuy defal bis bi Cheikh Issa Diène wootewut ab tariixa Cheikh Issa Diène taalibe Sëriñ Tuubaa la ko defar te Cheikh Issa moo waxaloon boppam ne Sëñ Tuubaa daa tàllal loxoom ba mu jeex mu teg ma fa man fa loxo ba yam daan na ku sutul sëñ Tuubaa loxo mënoo ma fa àjji loolu la Cheikh Issa wax de Cheikh Issa Dieng nee na sëñ Tuubaa daa tàllal loxoom ba mu sës ba mu jeex fa mu yem mu teg ma fa man Isa ku mënta sut sëñ tubaab loxo mënoo ma àjji te ku waxuma la sut sëñ Tuubaa loxo waaye ku sa loxo mën a jege loxo sëñ Tuubaa amut kon Cheikh Issa du wàcc ba ca toppit Serigne Touba moo waxalaat boppam ne ca góor yàlla yàlla bokkit loolu it Serigne Touba ko seere ba muy gërëm Cheikh Bara jenn taawam bu baax ba murit saadix ba nga xam ne lu bari ay turandoo ngoog te néewi jëm mooy diw murit murit la te sëñ Tuubaa ko seeree loon Cheikh Bara Diène kere ba mu koy gërëm dane ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la sa baay Isaa jenn gërëm na la te ci góor yàlla yi la bokk te te sëñ Tuubaa ku muy naw ci lu bari néew na waaye naw na Cheikh Isaa ba ne ko ci góor yàlla lay bokk moo tax Cheikh isaa Diène daana ne man du ma sëriñu gone sëriñu boroom yitte la kon xam nga li ngay xame ne sëriñu borom yitte la mooy boo seetloo ñi Cheikh waxuma jëmmi Cheikh Issa waaye beneen contestant bi nga xam ne Cheikh Issa créé waat na ko rek bi ko suñ Tuubaa duyelee àndaaram ba noppi ñi Cheikh Issa duyel képp mën nañoo dem ci làmb ji ñuy tudde góor yàlla yi mën nga ca tànn ñu bari tey boo jëloon ku mel ni sëñ ngañ tàndine mas naa jox gëléem addiyee sëñ tubaa sëñ tubaa na ko sa taalibi bi gëléem gi ma jox moom lay war ba ca jànnatu naay mu wàcc ca te kooku taali taalibi Cheikh la Cheikh Ibrahima Touré taalibi Cheikh Issa Diène la ñeneen taalibi Cheikh Issa Diène sëñ daam suran ñoo ñëpp tey ñoo tudd kan moo leen defar Cheikh Issa moo tax Cheikh nee na duma ma taali du ma sëriñu gone sëriñu borom yitte laa sëriñu borom yitte kon ku am yitte ju kawe yaay mën a egg ci dayo bi Cheikh Issa Diène yegg li ngay xamee ni kon booy koy seet ci gaa yu baax yooyu fi muy tollu ci jëf mooy lim dajale ci ay ngërëm ci Sëriñ Tuubaa man nga ko ca misaal boroom xam-xam yi mag ñi dañoo nawante woon moo tax ñu man a nettalante ay yiw kañaan bi mu xewee léegi ngay xam ci nit fi ne yàlla xam ne da ngay gis ku toog di waxtaan xam ne li muy wax Cheikh Issa jenn wala sëñ Baara jenn wala sëñ Abdou Karim Touré nga ne am na menn mag lank bañ koo wax ndax boo iñaane ko wax ndax naan bu ma ko waxee sëtam bi dégg loolu ak kiñaan dong la mag ñi nag xoolal sëñ Ibrahima Diop almachar yi xoolal sëñ Mouhamadou Lamine Diop ak degen yi kan moo leen ëpp xam-xam ku leen gën a jege sëñ Touba ay fiqa la sëñ Modou Lamine Diop dagg na damay wax ne euh, xitaa bii mu dagg rek min wa minhum muridul maaruf bi xasil xiyaam bii mu wax jëmee ko ci Cheikh Issa Diagne loolu doyoon na ci portale bu ñu la waxoon bu ñu doon def benn micro trottoir man huwa Cheikh Issa Diagne bi taarif kan mooy Cheikh Issa Diagne boo ko bëggoon a xam ci loolu rek doy na ci mooy lan Cheikh Issa dane bi muy lim ñi doon taxaw ci jumaay Touba ji di wax pas-pas yeeg taxawaay yi nam dane bokk na ca murit bu ñu xam ba ci rafetub taxawaay ak kawe yitte Cheikh Issa Diène mi nga xam ne bi mu ñëwee ci sëñ bi te booba fatx bi ñëwagul ci moom amul benn occasion wala wenn yiw wala jëf ju baax gum gis ci béréb te jëliwul loolu indi ko benn mësu ko raw ci aw yiw wala baax bi ko sëñ bi ubbilee li mu ko ubbil nag mu dem gas ay teen sanc ay njën ni di liggéeyal Serigne Touba xidmata siddiqin la wax liggéeyu dëgg nga xam ne Cheikh Issa mësta triger ci liggéeyal Serigne Touba mooy li Serigne Touba waxoon sëñ Basiiru na ko sama juróom-ñaari ati géej gi du réer ndax bi may jaamu yàlla naxuma ko bi may yàllay fay naxuma adduna du kërug pay waaye mbir mi ëllëg la waaye Cheikh Issa Diène bi muy liggéeyal Serigne Touba liggéey bu dëgg mu ne ko ci ñaata étape mu ne xablal xëy ba baax dal xëy sëñ Mouhamed Lamine jëkk géej gi Cheikh isaa liggéeyal na sëñ Tuubaa ba làmboo ay ngërëm bi sëñ bi jógee ci géej gi it liggéeyal na ko ba làmboo ay ngërëm mu teg ci ne daa mujj nekk xudwatul jamia nee na ci njëreem moom ki doonoon royuwaayu ñëpp dool delluwaay ñëpp nee na moo doonoon Cheikh jenn Diène radiyallahu taala anhu loolu kon melokaan la woo xam ne euh, jëf yu rëy ak doxinu lu mat moo ko may ci digganteem ak Serigne Touba. présenté waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. góor ak taalibeeb Serigne Abdoul Ahad Diène naar taalibeeb Cheikh Issa bokk ci commission bu ñaan finance. Euh, ndax mën nga dellusiwaat ci organisation sur le plan financier naka ngeen ko amalee. waaw xanaa di santaat yàlla bu baax a baax rek. te naan ndokke Cheikh Issa Dieng tey xam ne ndam yàgg naa am waaye ndam amati na tey jii ndax képp ku ñëw tey ji ci bisub Cheikh Issa Dieng bi di nga xam ni Cheikh Issa kenn la ci kër Serigne Touba te bisub tey bii wane na ko ndax bis bi at mu nekk rek. day gën di firndeel jëfi Cheikh Issa ci kër Serigne Touba ndax ku xool ni bis bi mébbi siyu tey taalibey Cheikh Issa ni ñu ànde ak taalibey Cheikh Anta yi ak taalibey Serigne Afiyé imaam yi jumaa nga xam ne ah gàcce ngaalaamaa Cheikh Issa Diène Cheikh Issa liggéeyal la Serigne Touba waaye Serigne Touba fay na ko tey jii. dañoo xam koppar euh, ñaata lañ mën a xayma ci organisation bés bu ni mel. waaw daanaka mbir mi moom mënees na koo takk mëneesu koo takk. ndax ku xool bis bi li mu toll ak li ci dem nga xam ne ay millions yu bëree bëri yoo xam ne mënaguñ koo sax xayma dem na ci bis bi waaye nag lépp taalibay Cheikh Issa Diène yi ak soppee Cheikh Issa Diène yi ak jëmm yi nga xam ne seen lépp dañ koo jébal Cheikh Issa Diène ñooñu ñoo boole seen lépp ngir taxawal bis bu rëy bii waaye bis bi daal ci gàttal niñ la ko mën a waxee li ci dem moom neexut a takk ay millions yu bëree ci dem waaye nag ñu ngi jaajëfal taalibay Cheikh Issa Diène yi nekk ci biir réew mi ak bitim ndax gàcce ak ngaalaama ñoom fépp fu ñu wootee Cheikh Issa Diène rek boole nañ seen doole ak seen alal ak seen ñàq def ko ci liggéeyub Cheikh Issa ba liggéey bi yanjeen yi tey jii. Euh, ndax mën nañu xam perspective yi bu ñu doon dëgmal at bi ñuy at bi passé lan ngeen xayma ci yokkute innovation ak li ngeen dëgmal at yi ñu ñëw incha allah édition yi jëm. waaw wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax ndax yokkute moom am na ci côté yëpp bu dee ci wàllu mbooloo mi gën nañoo yokku bañ gën ni yokku na ndax nit lépp lu may def am ci ngërëm ak lu muy def te amu ci ngërëm mënuñu cee munta yam te lii dañ ci am ngërëmul sëriñ Abdou Latif Jenn xalifa maam Cheikh Issa Jenn moo ñu jox ndigal kon tey jii bu ku dugg xool rek da ngay xam ne ah gàcce ngaalaama ndax ku fi ñëw démb xam tey li nga xam ne si Issa de tayam ju ne gàccaal na démbam mbir mi buntu kër gi nag yokku na ci côté yëpp ci wàllu finance ci wàllu fédération ci côté yëpp yokku na ci ndax fédération yi daayira Cheikh i Diène yi nekk ci biir réew mi ñun ñëpp joxante nañ la ko ànd ci jamiyatu tawdihi wa nasli injazat Cheikh Issa Diène ngir wane rek njeexantalum Cheikh Issa Diène ndax jot na tey ji sëkk ci jamono ñu xam kuy Cheikh Issa Diène ndax Cheikh Issa kat la ci kër Sëriñ Touba kenn jiitu ko ci kër Sëriñ Touba waaye tey ji ku xool ni jamonoy doxee nga xam ne lépp lu yëngu ci réew mi rek loxo waa kër Cheikh Issa Diène mu ngi ci loolu nag dañ koy sant Cheikh Issa Diène bu baax baax rek moom wax di yàlla xol sedd na laal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jërë ngeen jëfati sëñ Mbàkke Sourang nga jiite lan maa ngi bokk si ñiy liggéey ci wàllu culture bi bés bu am solo bi ñaata édition ngi nekk ak tamit thématique ngeen tànn ak ki ngeen ko tuddee ndaka ngeen ko waajale donc liggéey bi ñu ko tàmbalee ñoo ngi ci sixième édition li li motif bi tam mooy fexe ba dajaloo euh, pour ñaan googu nga xam ne sëñ Tuubaa ñaan na ko di ñaan mbooloo moo xam dañuy taxaw ci ay mbiram fu mën a nekk ñu jàpp ne ci mbooloo moom lañ bokk mooy xutli jamaatan tuqimu abada ala umuriya wa sa'i ahmada inspiration boobu la am wut tur wi seet ki xam moo fi nekkal Cheikh Issa mu Sëriñ Abdou ñu gaaral ko ko mu joxe si ndigal waaye ni lii mbir la moo xam ne na yaatu te na ngeen ci am positif te lépp ngeen teg ko si yoon fu ngeen bëgg mu àgg fa rek dana fa dana fa àgg wax ñu si lam ñu si wax si mbirum biir si moo xam ñu ngi koy ñu koy gis ak mbirum saayir loolu nag moo ñu moti mbokk yi seetaan bu baax a baax ci Tawfekh Production ñi ngi ba tey ci journée culturelle bi fii ci euh, CICES euh, ñu toog ak soxna su tedd soxna Bintu Dieng moom sëñ Bassirou Dieng ibnu maam Cheikh Issa Dieng nekk fii ci salle bi ngir nag moom it teewee journée culturelle bi ñu jagleel Euh, kenn ci euh, yoonu murit di maam Cheikh Sa Diène mu dajale ni ko dajale ko tamit ñenn ñoo xamante ni ràññee nañ leen bu baax euh, ci yoon yi rawatina ku ci mel ne maam Cheikh borom dërëm ak gërëm soxna si Mbacke ginnaaw bi nga teewee ci bés bi lan la ñu mën a jàpp ci ay kàddu ngir baax. sunu bisu maam bi xanaa di sant yàlla rek di julli ci yonent bi di sant suñu maam ju baax ji nga xam ne ah, sëriñ bi daal xëyul woon kenn gonte ko ah, di ko sagoo di ko ndamoo ndax day la ko sëriñ bi noonu ah, taalibe yi isaa taalibe li ñu bari bari yow laa ci gën a bëgg loolee moom loolu rek doy na waaw daal di koy eh, defal mu defalul kenn ngërëm ko ngërëm mu gënalul kenn waaw loolee nag moo tax ñu itam di ko defal bis bi di ko ko sante maa ngi leen di sant di leen gërëm waa di sant sunu doom yi nga xam ne ñoo euh, defar bis bi ñoo ko jiite waaw suñu suñu doomi càmmañ lañu kon nag euh, yéen jërë ngeen jëf noo ngi di sant noo leen di gërëm yal nañ ko nan fi yàgg a daje te yàlla daje boole noog gërëmal sëriñ bi ci barke Seexul Xadiim barke borom yenn jërëjëf soxna Bintu Dieng euh, Bintu Serigne Bassirou Dieng jërëjëf euh, baax na soxna si Dieng. samay mag bu pare rek baax na ñu ki ñëwul yal nangu ziar. ah kontaan ci rek bég bég ci rek. man mën naa présenté wu ba pare. may fukkeel bi doomu Sëñ Bara Dieng taawu Cheikh Issa. sama baay nag visionnaire la woon comme sama yaay ndar ndar la dëkk daf ko ñaanoon mu dugal man école nasaraan ma góor góorgóorlu ci ba nekk professeur ci lycée yi waaye yàqul dara ci sama diine nag yàqul dara dara dara dara ci sama ngëm-ngëm kon buñ ma wooyee ci sama bisu dama ciy bëgg rek kontaan ci lool lool lool lool ñaan yàlla yokk seen leer taas ñu seen barke lañu fi ji woon bañ fi jógee man damay wax toujours ni man dama bëgg di dundal Cheikh Issa dama bëgg di dundal Cheikh Issa cest gëm gëm mu amoon bëggeel gëm mu bëggoon Cheikh Ahmad Bamba ma mel noonu ba sama njaboot ba sama njaboot futur mel ka tudde naa Cheikh Issa sëñ Baara doom tudde naa Cheikh ba Cheikh Ahmad Bamba doom ñoom ñëpp jàng nañu alxuraan dañuy liir seen i seen téere ku ci mel ni Cheikh Ahmad Bamba moom day dem sax di màggali ah ñun daal dañu bëgg dundal Cheikh Issa dama fi bàyyi rek man ko dundal ba keroog suñu njabooti njaboot njabooti njabooti moo tax ma teew ci bés bi ne wér gi sax mayu ma ka waaye góor góorgóorlu naa ba ñëw ak njaboot gu ñu ngi ci gannaaw toog waaw loolu daal laa ñëw ñaan yàlla may ñu fan wu gudd ak wér gi yaram ñu teewee ko déwén yu bëree bëree bëree bëri ak sama rakk yi ma dendal teewee ko déwén yu bëree bëree bëri ak yéen ñi koy def yàlla may jàmm ñun ñëpp. sëriñ bi daal noonu la xam ne mooy. taalibe sëñ bàmba lañu bu nit nee taalibe bi sëñ bàmba laa ku bokk ak sëñ bàmba mooy sa sëriñ loolu na wér tan xam ko bu wér yéen yéenay sunuy sëriñ yéen it lañuy tiitaroo yéen it lañuy sagoo ndax yéen a fi nekkal sëriñ Touba ci kaw suuf kon nag ñu ngi tëj kàddu yi ndax guddi na tey am na ñeneen xaj nañu war a jàllale ay kàddu waaye sëriñ Cheikh gërëm na leen sant na leen ay magam gërëm nañ leen sant na leen baayam yaa ngi nii toog ak rakkam yi ñëpp sant nañ leen ak mbokkam yëpp sëriñ Abdou Latif daal lii rek la bëgg ñu di ko wax muy wax ju baax ju rafet ju jëm ci yéen te foofu rek la nekk te yéen it foofu rek lañ leen fekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi euh, jërë ngeen jëf yéen ñi doon bàyyi xel ci suba ak léegi programme yu Tawfekh Production euh, ngeen doon am sixième édition journée culturelle bi ñu jagleel Serigne euh, Cheikh Issa Diène nekkoon kenn ci cheikhul yi nga xamante ni Cheikhul Khadim joxoon na leen yeewoon na leen jox leen gratub cheikh ndax liggéey bu am solo bi ñu def ci wetam waaye tamit ci yoonu mouridisme waaye tamit ci l'islam di rek tey jii kon nekkoon juróom-benn édition ñu jagleen ko Serigne Afia Mbacke imam ak Serigne Cheikh maam maam Cheikh Anta Mbacke di borom dërëm ak ngërëm borom gaawaan ñaar ñooñu nag nekkoon ñu ñu ràññoon ci yoon yi tax tey jile nekkoon bés bi nga xamante ni kon baaxee nañ leen ko rendre leen ci hommage waaye également mu nekkoon bés boo xamante ni kilifa yu bëri teewoon nañ fi moo xam ci politique moo xam ci diine ngir ñëw bañ ko wuute am seen euh, fasal seen yéene ci bés bu am solo bii moo xam mag ndaw jigéen xale ñoom ñëpp ñëwoon nañ euh, teewee jotaay bi nga xamante ni thème bi ñu tànnoon ren mooy paix di jàmm ndax ku nekk xam ne ne ki ñu ko tuddee sax di maam euh, Cheikh Anta Borom Daaru Salaam ku wax Daaru Salaam xam ne jàmm mooy lu mooy këru jàmm gi kon yaakaar naa ne ñu jëm ci ay élection ñu tànn thème boobee dafay firndeel jàmm ji nga xamante ni daf ko mosoon fonk ndax ku nekk xam ne lislaam bëggul fitna bëggul ay ndax sunu borom sax wax rëbb na képp koo xamante ni yaa ngi yee fitna kon jàmm jooje nekkoon ponk bi nga xamante ni waxtaan nañ ko gisoon ngeen sëñ Gana Messere Maxtaar def na fi conférence ñu diglu sànq ki nga xam xamante moom moo di kon ki euh, yore porte parole bi également euh, doon euh, wax sànq ci turu Serigne Abdou Latif Diène ci turu njaboot gi nga xamante ni kon doon nañ ñaanal ñëpp nga gis Serigne Modou Mbacké ibnu Serigne Abdou Wadoud ak ñëpp ñi nga xam teewe nañ jotaay bi rawatina njabootuk Serigne Abdou Latif Serigne Fallou Galas Diène ak ki nga xam te moom moo di kon Serigne Sidi Diène mbokk yi kon mu nekkoon loo xamante ni amoon na solo ñu ñaanal xalif bi Serigne Abdou Latif yàgg fi loolu tànd ak wér waaye Serigne Sidi Serigne Mountakha Mbacké tamit yàgg fi loolu tànd wér al xalifatul am gis nga ginnaaw bu ñu jógee ni ngoon fay tey ji si sees doon màggal lu nu mel kon Serigne Abdou Latif Diène yàgg fi loolu te wér Serigne Mountakha Mbacké yàgg fi loolu te euh, di wax Tawfekh Production ubbi nay buntam wooy leen di abonné di bës cloche bi am notification yi waaye di yëgle xew-xew bu ngeen mën di am bu ngeen ñëwee dañ leen ko jëlal ci anam gu mucc ayib dara du ci wuute dara du ci gàll goose ak Moutala Gaye mi ànd ak équipe bu am solo di leen